wala bu dellu siwaatee ñu jël ko 88 628 98 98 ñu jël auditeur bu jiitu. kooku bëggul sa tur di fay ki jox nga lekk bëggul nga dee. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. yaa Oustaz. waaw. ñoo ngi lay nuyu waaye di la siyaare bokk liggéey yëpp. ñu ngi jàmm salaam ak xewal. ngi lay nuyu saa kontaan ci moom toujours. Mm-hmm. ak mbokk yëpp euh, yàlla sama ci affaire accident yi la la bëgg a jëkke mm-hmm. accident yi ci boppam mm-hmm. état ci boppam moo deful moo moom taxawaayam ci boppam moo des lu bëree bëree bëree bëri bëri pour wàññi kii nee naa dafay am dafay am luwaa bu taxaw boo xam ne bii mu ñi danañ ko ragal au moins moytu Sénégal mooy réew moo xam ne mii moom daal doy na waar tojaangawu nit mu la def it te du mujj fenn waaye xam nga ne moo affaire affaire tali bi moom waroon nañ cee def ay ay ay ay ay jubbanti yu bëree bëri. Hmm. permis de conduire bala ñu ko jox kenn rawatina transport en commun dañ laa war a xool ndax dangay ngay jëfandikoo ñal wala déet. Hmm. bu ngay jëfandikoo ñal kenn du la jox permis dañuy nangu sa permis hmm. bu say accident bëree dañuy nangu sa permis ñi embauché bu euh, dañuy dañoo war a xool sa ndax yow mi bëri ngay accident wala déet yu demee noonu boo ko bëri lee duñ la embauché dafa war a am ay loi ay comme réew yi nañu xool ci réew yi ni ñuy doxalee ba seen mbir euh, kii euh, nit ñi maanaam respecté ko waaye réew moo xam ne mii lu neex waaye def te du mujj fenn affaire politique bi sama waaye ñoom itam comme mm, affaire la kii seen seen doxalin ci boppam nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax parce que itam wax dëgg rawatina état euh, dafa bu amee ay ministre ay kii dañoo dañoo war a respecté euh, seen seen seen seen dignité ak yu demee noonu ndax xam nga ne mos am na yoo xam ne ku ci tudd kilifa mos rawatina ku nekk ci état te lu mujj benn comme le président wax ci affaire ki affaire kii yooyu ñuy tuddaate euh, passeport yi demee noonu. loolu kuñ ko jiiñ ku nekk euh, dañ la war a ari changé la carrément ba ñu liggéey si ba mu leer waaye état bi moom kenn mosu fee dégg kenn kuñ sanctionné ne wàcc nañ ko wala leneen. waaw euh, mu nga kon ñu xaaraat keneen ci ligne bi ñu jël jotaay wax sa xalaat la 88 628 98 98 ñu jël keneen allo allo salaamaaleykum allo. allo allo waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. Adama. waaw waaye maa ngi fi. maa ngi leen di euh, waa Kër Saalum yëpp. ñu ngi lay fay waaw. Adama mbiru élection locale yi. Mhm. ministère de l' bi waxoon naa ko fi démb. Mhm. na dimbali askan wi ñu yokkal leen beneen quinze jours wala vingt jours. Mhm. su ko defee nit ñëpp mën a inscrit bu jamono ja ñëwee ñu mën a tegal teg seen i candidat génn campagne génn ay programme yoo xamante ni bu ñu la falee di nga mën a dimbali commune bëgg a dëkk wala départemental ba parce que loolu mooy liggéey bi te parti opposition bi fii ñu toll nii nañu jóg lépp lu ñu mën ñu def ko ba fexe seen militant yëpp am carte campagne fexe boo joxee programme yoo xamante ni lu bokk ci assainissement ak xëy mi ak génne jeunesse bi taxawaal bi ñuy def yëpp maire yi mën leen a dimbali comme ni ko maire New York di defee muy ville de Plateau war a jeexal la 20 novembre bii di ñëw 2021. ñun loolu la ñuy xaar. di di woo parti bi nga xamante ne moo ëpp doole ci Sénégal muy PDS. nañu góorgóorlu. léegi parti yi ndaw yi bu ñu ñëwee bëgg a bootu ci gannaawam na leen jël ànd ak ñoom président wat incha allah dana ñëw ànd ak ñu ci campagne bu boobaa Sénégal moom day neex parce que ñun ñëpp incha allah bu ñu ko fekkee danañu ñëw ànd def communication jàppale askan yi parce que askan wi sonn nañu xam nañu li leen ko teg moom mooy benn bokk yaakaar bi nga xamante ne depuis 2014 ba 2019 ñu ngi ci seen mandat jeex ñu kon na di fayeeku su ne loolu riba bu ñuy lekk te askan wi ànd nit lépp Macky Sall moo ñu ko tee maa ngi woo Sénégalais yëpp nañu ànd ak opposition bi yëpp nguy hmm. ah, ñu daal di nag euh, xaar keneen ci ligne bi ñu jël Assane 88 628 98 98 beneen auditeur allo salaamaaleykum waaw daa mel ni kooku dem na 88 628 98 98 beneen euh, auditeur wala bitim réew 33 841 22 33 allo. allo allo waaw. sëñ bi na nga def waay. waaw maa ngi fi. da nga am jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm waaw. alhamdulilah. barikalla. waa laaj bi est-ce que. coup d'état kii bi bokk na ci. tey bokk ci woon waaw. waaw ah, ba bokk ci. waaw. waaw waaw njëgi ci la bokk aussi. Euh, wàllu te clôture bi moo ci bokkoon tëj bi ñuy tëj kii bi ak euh, bindu bi ak li aju ci wàllu prix euh, comment ça s'appelle encore accident yi ak cas de noyade yi. yi. Mhm. te li ngay def lu bëri bëri bëri bëri. parce que sax mu def moom dara daanaka tam. ñu ngi tax maanaam. man sax wax dëgg yàlla dafa mel ni. Eh, eh, client yi sax ñooy pro ñoo gën a am problème si transport parce que mosu wax dëgg rajo. Hmm. ñuy wax sax ñu bon ci client yi. ay kaaraange yoon ngay dëggal. Hmm. transport bi nañu éviter wala chauffeur ba wala syndicat ba au moins en tant que eh, voyageur boo xam ne client la. am benn kenn koo xam ne mën naa wax seen jafe-jafe wala ñu am benn reportage sax au moins boo xam ne dañuy dem ci garage yi laaj gars yi lan ngeen di daj ak lan mooy seen jafe-jafe sax mënuñu ko am. Hmm. tax na nag euh, kaaraange yoon daal waaye kaaraange doomu aadama bi ne ci nekk moom gars yi boole wuñ ko ci hmm. ma wax seen waa jooju mën naa ko tàmbaat. maanaam ko ma koy tooñ ma ne ko wax rek war nga cee boole euh, euh, kii client yi. Hmm. parce que son nañ ci trop te daal deppi émission bi léegi ñun daal defal suñu bopp ci émission boobu. nguur gi su fekkente ne ña muy teg ci yoon wi nee na ñoom amuñu gedd bu ñu war a mën a taxawee def contrôle syndicat yi mën nañ taxaw ne contrôle dooru ci am ñu def ko lu ñu jël laaj ñu def leen ko ah mais leen nax def leen nax def moom fi mu moom affaire bi jaxasoo na trop trop trop parce que crise autorité lañ nekk ah. ak naqari rek moo am jaa ngeen jëf ok ak di jàngatam ñu xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko Assane 88 628 allo. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. Adama. waaw. Euh, député Moussa Cissé. ñu ngi lay nuyu Cissé. Adama ngeen baal ma rek ma jaale suñu mbokk male Alaaji Aliou Wilane Sam Notaire ñu ngi ko jaalee soxnaam si. Mhm. Euh, Adama Adama lii xew Sénégal di métti na lool ab état boo xam ne mënta defal ay doom carte d'identité. Mhm. sëñ bi loolu coono la métti na walaay Sénégal sonn nañ pour am carte d'identité. Mhm. un li gën a war a jiitu ci moom mooy identifier population. état bu Sénégal jël cinquante deux milliards ak Abdoulaye Daouda Diallo ne dañuy defar sénégalais carte d'identité moom ñëpp xam ne dafa sénégalais carte d'identité mhm. Abdoulaye Wade vingt cinq milliards kese la amoon mu defar sénégalais yëpp carte d'identité ak dafa leen carte électeur séparé ko ñii ñëw boole ñaar ñii man xaw ma dañu bëgg a sonn sénégalais xaw ma dañuy cuune xaw ma li ñuy def ñoo ko teel wala lan lañ ci jublu mais lu nit jàng di jàng di jàng di xam nga ne carte carte d'identité bii nga dem wuti carte d'identité tey suba nga dem déposé waa ñu sànni kat d'identité bële déw di wutaal nga xamaat beneen carte d'identité sëñ bi loolu ku koy def ci réew da bëgg a saboté di yàqaleel réew mi rek léegi nag li nga xam ne moom laay wax euh, Adama suma mbokk opposition bi ni ñu commencé coalition bi ci suuf nañ dem commune bu nekk nañ seet parti yi nga xam ne ñoo fa déggoo ñu def seen coalition ñu ànd nekk benn fexee jële li nga xam ne moo fi nekk nii maa ngi ñaan parti parti opposition yi xam ne am nañ kattan bi yëpp hmm. kenn koy na nga joxe sa caution suñ joxee seen caution joxee seen militants yi ak seen responsable yi ci commune yi ñoom ñu seetante ci seen biir commune boo dem am na fa ñoo xam ne ñu ëpp doole xam ne àndaloo ak politique bu Macky Sall képp koo xam ne maire bi Macky Sall tekki sa commune ba d'accord loo ci même boo nekkee APR na nga rejoindre bi yéen seddoo yi def seen tête de nga xam ne fi ngeen ko defee ni ñi wootee ko ñu ànd jëlee li nga xam ne moo fi nekk wallahi jaamu yàlla la tey fexeel li nga xam ne moo fi nekk nii ak ancien maire yi fi nekk ñu jëlee leen fi puisque Macky Sall dafay def test day seet ba xam Sénégal yi bëgg nañ ko wala bëggatuñu ko suñu fexe Macky Sall amul fukki maire yi ci Sénégal rek dootu waxat troisième mandat hmm. sëñ bi élection wu deux mille vingt quatre bi mu ngi nii fii lay leeree Sénégal yi jóg leen génn ah, ñu daal di xayal ci ligne bi Assane mu ngoog jotaayu wax sa xalaat ñu jël auditeur bu toftale ci moom allo. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ñu ngi lay nuyu Xaas. ñoo leen di jaale di jaale waa ci defee yëpp ok comme ni ko kooku waxee di jaale El Hadj Aliou Diagne baax di ko ñaanal suñu borom yàlla na ko yàlla may xolu muñ rek amiin waaw ah Adam mhm. xam nga euh, boo demee ci service dene ni di permis mhm. damay correct mhm. damay sol lu jot boo solee cap doo dugg boo solee kilo doo dugg boo solee lu clim doo dugg boo demee da question yu ñu posé da nga fexe ba répondre ko na ngay ba am permis soo ci continué woon code de la route li mu la jàngal parce que amul benn code ci code de la route Sénégal wóoroon nag bopp man fu dem naa fa dem naa ba fonk la mais amul benn tableau bu lay wan na la dawal cent quatre wala cent soixante dix limitation autoroute à péage cent dix lay am bu dee tëddi yëpp quatre vingt dix lay rappel foo daw ñu wan la tableau ne la rappel quatre vingt quatre vingt quatre vingt quatre vingt mais nga jël oto man démb damay daw quatre cent cent lay daw. ab ab ab dix aw camion di njëkkante duble ma ci particulier oto essence buy daw cent oto ak dix ak camion di njëkkante duble la ñoom lan la ñuy daw xam nga nit ñi pour ñu normal ñoom ñoo war a xam duñ ay bàyyi ma état li man jël ay règlement teg jël ay sanction teg loolu moom moo def sanction moom lañ ko war a yokk bu baax a baax bu dee problème carte d'identité nag li muy wax sama ko dem mooy sama ko tey ku jur sa doom yaa ko war a wutal këyit juddu déclaré ko ca mairie ba wuta dem moom bu màggee ba mesure moo war a dem wutali carte d'identité boppam hmm. état wuta wutal kenn carte d'identité lii cinquante deux milliards yi ñuy wax nag dañ cee boole machine yaag lay defar carte d'identité yaag lépp indi ko tey boo déposé carte d'identité nii nii nii bala moo a trois jours wala quatre jours ñu defaral na ko joxaat la sa carte d'identité passeport noonu et cetera noonu fii jamono ñii di wax ñii biñ fii ne mairie boo dem dana la daan photocopie euh, sa kayitu ji dina la demal nga defar ko fee ñëw ñoo defaral la ko léegi loolu dañ ne ci réew coalition yi ñu wax nag la ma waxoon dem moom laa ko tey ñu dem fenn. Ah, ñu daal di xaarati keneen kon ci ligne bi ñu jël ko Assane bu ñu ko waxtu yu mayee keneen allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. ñu lay delloo si bu baax man dama doon laaj seen benn auditeur boo xam ne ñu ngi ko wax Jibi Sow te dëkkoon parcelle man damaa ko jël dégg ci moom dara. Mm, waa xëy na mu ngi lay dégg. waaw dama ko gëj dégg lool lool te mu te mu dëkk parcelle te daan woote waaye jàmm rek la. waaw xam naa mu ngi lay dégg ñàkkul dina dugg wala ñu ko xam kon kon baax na gannaaw loolu itam waaw hmm? accident yi bu dee yi moom waaw dëgg dëgg chauffeur si borom oto yi ñëpp ci am ak ak sax ñuy dox ci tali bi mhm. ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day dox ci digg tali bi ñu wax mu ne boo ma laaloon mhm. ak chauffeur boo xam ne itam day bëgg a laal nit na ko boo taxawoon ma def noonu mhm. xam nga xam nga affaire marché yi daal dafa bari lool sëñ bi ci Sénégal léegi daal léegi daal dëgg dëgg dëgg dëgg il faut ñu indiwaat yar. Hmm. indiwaat maanaam bëggante. Hmm. indiwaat kenn ku ne def sa moroom comme kenn. Hmm. waaye tant loolu amul. ak ak ak itam di yaari baat ñett nga ne su ma fa demee du fa taxaw. dëgg dëgg loolu daal kon kon kon kon dana ñaaw lool doy na waar man la Massar Diop Kër Ngount arrondissement Koki département Louga mhm. jërëjëf. ok euh, jaajëfal ko kon ñu daal di xaar keneen euh, Assane euh, ci ligne bi ñu jël ci 88 628 98 98 keneen allo allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw Sall Adama Ndiane. waaw Babacar Ba Amérique du Nord. ñu ngi lay nuyu Babacar. Eh, ñu ngi lay siyaare bu wér di siyaare ñu ngi bokkal liggéey bi siyaare Baye Omar Gueye. bi dem ba nekk ay télévision. amiin waaw. bëggoon a bokk ci débat bi. ay waaw yow la ñuy déglu. waaw ah, man de damay wax ma xalaat rek ci mbind mi. Hmm. waaw président Macky Sall xamoon na ne diir diir bi dafa hmm. yi élèves yi jógee ci école yeeg diir biñ ko def daal dafa dafa gàtt lool. Hmm. waaw di ko xamal rek na muñ rek. xam ne li ko fi fal rek moo ko fiy jëlee waaw na yokk ba la ñuy bañ ba bañee problème am ci dëkk bi nañu yokkaat bind mi après xale yi dem bind ji suñu wootee nga gañee nga muy noonu te mu fexee rek jàmmwante ak opposition bi parce que loolu mooy jàmm am mooy jàmm réew mi mooy jàmm ñëpp daal na jàmm ñoom rek xale yi mu joxaat leen dale waaw puusaat dale bi bu ko defee ñëpp bind am carte d'identité lii yoon sax carte moom kenn waru koo ñàkk ci réew parce war a woote itam am na droit pour parce que li bon mooy am problème ak nit ba pare tooñ ko te yenn ñoom dafay niru ay tooñ te yàlla du faral kuy tooñ waaw te moytu meru xale yi parce que xale moom boo nekkoom rek da leen neexal bu fexe bañ mer ndax seenu mer moo taxoon li fi amoon paas bi am kon nag nañ yokkaat dalu data datu inscrit bi bu ko defee ñu ñëpp am seen quarante watal ku leen neex bu fekkee moom la baax na bu fekkee du moom itam mu muñ rek opposition bi nag ni ñu def noonu noonu la Ousmane Sonko foofu ma jël foofu ma jàm baaraamam foofu la foofu mu yokk foofu waaw ñi mu woo ni ah gis na lu leen doy si ñoom nañ ànd rek booloo te xam ne liggéey senegal rek moo leen ñor su ko defee ñu topp ci ginnaawam rek fu mu leen nañ fa jaar rek ñu jaar ko waaw ñu ñoom bukkaan bu ñu bëggee ñëwaat nañ ñëw rek bañ a andi ay coow parce que coow baaxul bu fekkee moom wóolu na boppam wóolu na ne du li bañ du ko def hmm. ah na ànd ak ñoom rek ñu bokk liggéey ndax ñoom ñëpp liggéey Sénégal yi moo leen ah. mu ngokk euh, Assane kon ñu xaaraat euh, keneen biir réew mi walla bitim réew jotaay wax sa xalaat wàllu accident yi kaanuwaayaat yi waaye itam euh, tëju bindu bi ci list yi ba ci wàllu ndox mi ak jafe-jafe daal di ciy jot wala facture yu cher ak leneen alo alo salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo. waaw kon ñu xaar Assane mu dellu si wala ñu jël keneen alo allo salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam waaw. Fatar moom man la Souleymane di la woowee pare na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah waaw mais bëggoon wax ci euh, waay euh, accident yeeg euh, prix yi yokk yeeg ñàkkum ndox mi. Hmm. xalaat encore ak mbënd mi. Hmm. bon dama dégg temps yi président dafa wax waa IGE. nañu lancé audit xaw ma ci kii la euh, euh, voilà barki démb laa wax na ko foofu la xaw ma ci inondation yi xaw ma xaalis boobu ñu génnee. Mhm. lu mu jaaxal mooy dañu am ay institution Sénégal comme ay IGE ay assemblée nationale yi nga xam ni c'est des institutions normalement qui sont indépendantes maanaam ñu xaar ba président wax leen dem leen ngeen saytul mu lii ñu doo ko def parce que ñoom seen mode de fonctionnement may na leen ñu jóg comme assemblée nationale lancer ay commission d'enquête parce que kii réewul mbir mi Sénégal temps yi problème yi fa am mooy prix yi yokku accident yi bëre xaalis bi mu dugal ci inondation bi ak ñàkkum ndox mi assemblée mën na autosaisir wu da nga lancer commission d' enquête pour jëm a xam wax Sénégal yi la moo ci problème bi IGE tamit am mode de fonctionnement fonctionnement may na ko soit président wax ko demal nga seetul ma lii wala ñoom seen bopp bu ñu defee seen assemblée général ñu toog xool ni fii kat war nañu dem saytu ko wala seen vérificateur mooy seen chef bi mën na décider ni damay dem saytu tel bu sentir que fii am na fraude wala fii am na malversation wala fii ñu ngi jël alalu askan bi di ko pasar pasare c'est des institutions qui sont indépendantes waruñu xaar bu président di leen wax danañ ngeen saytu parce que yi am Sénégal temps yi yi mu la cité yi inondation yi prix yu yokk yi accident yu bëri yi nga xam ne ay corruption ñu joxee permis yooyu yëpp c'est des c'est des motifs valables saytu xool li fa am ba pare wax Sénégalais lu fa nekk waruñu xaar ba président di leen ko wax ñu koy def je comprends hmm. xam sa liggéey nga def ko. Hmm. ok Assane kon daal dinay jeexal ñu xaar keneen ku ko wuutu ci jotaayu wax sa xalaat bi biir réew mi wala bitim réew xëy na ko mujj allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa ñu ngi fii waaw moom lu Diop la AIBD. ñu ngi lay nuyu Diop. na ngeen def ça va. ñu ngi fi ça va waaw ah, ñu ngi lay nuyu di nuyu Alassane. Mm-hmm. di nekk ci xarala gi. di mm-hmm. jaale bu baax Abdoulaye Wilane mbokkam soxnaam soppi yàlla na ko yàlla xare àjjana. Mm-hmm. yàlla yokk ko ay leer. waaw ci affaire yokk bi moom euh, comme yokk bi dañ noonu dañu yokk ñun ñëpp di ko coow ñu commencé di ci def ay réaction ñu ne wàññi nañu. nañu bàyyi rek ñu gëm wàññi gi ba xale ba kere ñu koy ñàkk a gis. fi mu ne defe naa ne affaire bi comme moom. yokk nañ ko ba Sénégal yëpp dégg ne dañoo yokk ñu taxaw ne ku na ministère bi taxaw ci boppam ñu def ay détails ne kees suukar léegi ñu ngi koy jaayee kilo suukar ñu ngi koy jaayee comme yi euh, wàññi nañ ko ba mu yegg fa mu nekkan nit ñi dañuy dugg ci rajo bi ne ne léegi wàññi boobu du wàññi ndax loolu dañ ko cee tegg woon tegaat ko ci xam nga yooyu yëpp ay jaxase la nit ñi dañoo war a bàyyi affaire yi muy dal boo gisee loo war a kaas nga kaas ko boo ko kaasee bañ koy faj nga teelul ndànk ñu ñu régler ko loolu moo gën a rafet que à chaque fois lu ñu def rek ñu ñëwaat xalaataale ko neneen loolu rafetul àll bi ñun ñëpp ñoo ko bokk réew mi du defar mukk de mukk te ñun ñëpp àndu nu defar ko kenn mënu koo defar ci ay wax wala ay kii yoo xam ni àndoo ko ak nit ñi pour defar ko am réew nit ñi fu nekk population bi ñoo koy defar nañuy wax suñu digganteeg yàlla te wax honnêtement ne nañ dañoo yokk nit ñi ñëpp réactionné semaine yi ñu passé yëpp ñu dem bañ ne dañ koy wàññi nan gëm wàññi ngi rek bañ ñàkk koo gis bu ko defee nag boo lëggee ñu mën a kaasaat leneen ah problème accident yi aussitôt comme li ma leen wax man su ma wax du ci bari mais xam naa ne quatre-vingt-dix pour cent yi yëpp chauffeur yi ñoo mën a wàññi accident accident moom bu fi dee wàññi ko chauffeur a koy wàññi ku mu neex na nga ne état bi waran naa def lii wala waran naa def lee waran naa def lee mais ñun ñii chauffeur yi nga xam ne ñu daal ñoom ñooy responsable yi bu ñoom ñoom lay sant man ñu góor góorlu xool lu ñuy doole xool nu ñuy bu ñu sonnee ñu noppalu bu ñu gëmante ah mu ngoog kon ci moom la ñuy daal di nag yëkkatee jotaayu xibaar yi liñ ñu cërale woon yegg na ci cappa ndaw gi äh, jaajëfal bu baax a baax Assane Thioune mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi 22h xibaar yi ci yaatal kàllaamay tubaab ak Marie Rosalie Ndiaye muccug bi teeg jàmm biir gudd fan ak wér wér am ak mën ak fekkeek tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.